Donc merci beaucoup. Je voudrais vous remercier de votre présence pour cette remise symbolique euh, des ambulances aux autorités euh, municipales euh, des, des, communes euh, concernées. Et il s'agit, comme par habitude, d'un don euh, avec euh, des partenaires et des amis qu'on a commencé depuis quelques années dans toutes les communes du Sénégal ou dans tous les postes de santé qui n'ont pas accès à des, à, à, qui n'ont pas des équipements euh, comme des ambulances. Euh, nous avons décidé d'accompagner la politique du chef de l'État en matière d'accès universel aux soins de, euh, de, santé. Et donc nous l'avons fait dans beaucoup de communes. Aujourd'hui, c'est un plaisir que nous avons pu, euh, avec le concours de ses amis, euh, avoir la possibilité de donner trois ambulances. Une ambulance euh, à Seawall, qui est, comme vous le savez, mon village d'origine, Euh, de mes, de, de grands-parents, donc Siwal Amalemoda, donc, euh, qui manquait d'ambulance. L'ambulance qui était là-bas était en panne. Euh, la deuxième euh, ambulance est euh, à Kermaba, Djahou, dont le maire ici présent est un de mes petits frères, un ami à moi, un camarade de parti qui a longtemps sollicité pour sa commune et je voudrais le féliciter une ambulance. Et c'est un moyen important pour satisfaire aux besoins des populations. Et, et enfin, pour euh, la com commune de Pire, avec mon ami Ndoiban, euh, dans, un, dans un poste de santé d'un village euh, euh, par hasard qui s'appelle K, où la plupart des villages, c'est des parents, euh, sont mes parents. Donc c'est un village Touba-Kafal, mais le village s'appelle en réalité K. Donc pour disposer de cette ambulance et Et je me réjouis et je, je c'est avec euh, une croyance que cette euh, nouvelle me trouve, euh, la triste nouvelle du décès à l'instant de mon père, me trouve euh, dans, en, en, en, ces lieux pour faire ces actions-là. Euh, c'est pour cela que j'ai tenu, euh, quand je l'ai su, à cinq minutes d'ici, de venir continuer le chemin que mon père m'a conduit faire. imam euh, Baba Sow conseil spécial de DG Doudouka donc euh, li xew ñun ñëpp a ko bokk yëgandoor action sociale bu mu doon def euh, ci continuité liggéeyu ak instruction liggéeyu président de la République à cinq minutes de son arrivée pour remise de ses ambulances ci lañ ko annoncé génnu àddina papam donc loolu nag yii ay action la yoo xam ne dafay topp rek tànku ki nga xam ne mooy kilifaam di président de la république ci jàppale lépp luy gox-goxaan parce que loolu dafa bokk ci seen programme bi ñuy taxawal yoonu yokkute président bi muy yottu réew mi mooy fépp fu gox nekk ci biir réew mi da nga war a sentir sa bopp comme kuy dundu biir dakaar kon action yooyu ci la DG nekk moo waral kon liitey ak ay xaritom nag yu ko jege kii di Ndoye Bane kii di Abdou Ndiaye Macky ak euh, commune Siwal. ñu ngi ñu ngi sant yàlla bu baax Abdou Ndiaye maire de la commune de Kër ba Maba ba ñu ngi sant yàlla bu baax di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un parce que ñun la oo di ñu di ñu defal ay teraanga yu bokk ci développement wu sunu ay localité sunu borom dogal loolu ci biir ndaje mi la ñu ko woowee ne ko waaye juróom wu góor moo génn àddina ñu ko ñaan suñu borom xaree ko àjjana waaye terewul euh, mu def ko kuy may ay ambulance pour faj ay doomu aadama ndogal loolu dal ci dañuy jàpp rek ne eh, li mu wax léegi ci nasaraan rek nee na ndénkaane bu ko waajuram doon ñaax toujours la pour muy dimbali askan wi donc su ko ci fekkee dafay continuer loolu nga xam ne waajuram moo ko digal mais ñun euh, dañu koy sant ci turu population yi ñu jiite gërëm ko parce que nit dana am ay partenaires te du ko du ko du ko jëriñee askan wi Euh, dëkkul Kër Maba ba dëkkul Pire dëkkul Siiwal mais jàpp na ne euh, ci réew mi la ñu bokk jàpp na ne aussi dimbal boo koy def euh, te du foofu la ko njëkkee je crois que boo demee région de Ziguinchor bi mu dëkk def na ko fa par presque partout ci ay communes donc su ko dugalee encore ci biir réew mi te du ci ñun la njëkkee te ci ñun lay mujjee aussi dañu koy remercier sant ko bu baax gërëm ko mais sant aussi président de la République bi nga xamante ne nii moo koy moo ko jox doole boo xam ne am am na ko euh, di ci ba di ci dimbale communes yu bari ci Sénégal di ñaan yàlla di wax rek ne euh, naataangoom yi nga xam ne président aussi jox nga leen ay cër nañu def comme ni muy def ni dimbale population bi ndax li jiitu ci dimbale population mooy fexe nit ñi am wérgu yaram nit ñi pour ñu am wérgu yaram bu bu bu bu nguur gi tabaxee ay postes de santé maire yi di accompagner. poste de santé yooyu war nañoo am ay ambulance yoo xamante ne nii euh, bu ñu bu malade yi jaaxle ñu mën leen évacuer yóbbu leen ci hôpital yu gën a mag donc c' est un geste noble un geste à saluer vraiment ñun collectivité en tout cas locale yi nga xam ne ñun la ko defal ak ñi mu ko defaloon ak ñii waaje ñëw parce que yemul fii ñu ngi boole cant gi ak ngërëm gi yëpp di ko ko jébbal di ko jaalewaat waaye juróom wi génn àdduna maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant euh, ci turu yëpp Euh, Ndoye Bane mu ngi fii di maire wu Pire le le maire de. le président du conseil départemental moom itamit mu ngi fii euh, bu Malem Odar Doudou wax na leen ko léegi fala la ay waajuram yëpp cosaano man ma nekk euh, Abdou Ndiaye di maire Kër ma ba Diakhou Ba